jërëjëf ami cher fidèle téléspectateur de Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di amati mbégte bu baax di jàkkaarloowaat ak yéen eh, ci seen émission bi nga xamante ni eh, ajuma bu jot ñu digtal leen ko muy les échos du net te du xew fenn fu dul Sénégal 7 la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit ba tax na tey ci kàttanu sunu borom fas yéene nañu yaatal lépp loo xamante nii rek ay xibaar la woon te euh, ñu amoon ko ci semaine bi ñu génn li nga xamante ni moo ci njëkk bokk na ci tey danoo yeewoo tiis ak nakar goo xam ne mi ngi euh, bàyyeekoo rek ci sunu animateur boobu nga xamante ni kenn dootu ko présenté un peu partout dans le monde di Boubacar Diallo way juram bu góor moo génn àdduna ci kanam ci yaatal gi di ngeen xam ban heure incha allah la ñu koy enterré ci kattanu suñu borom leneen loo xamante ni ba tey ah, bëgg nañ cee def dossier bu yaatu bokk na ci ah, commerçant boobu nga xamante ni ab bijoutier la woon ah, yàlla def ñu daal di koy faat ba noppi dugal ko ci otoom yi nga xamante ni ñoom ñooy analyse yeeg information yi nga xamante ni ñoo ci mujj tey dinañ leen ko yaatalal ba ngeen xam exactement kan mooy le véritable meurtrier leneen li nga xamante ni ba tey bëgg nañ ko yaatal bokk ci coowal Lamine Samba ak koo xamante ni daf ko yor tëraloon nee nañ lu toll euh, ci ay millions yu bari dinañ ko euh, faram-fàccee ci kanam bu soobee suñu borom yeneen yi nga xamante ni saa su ne rek moo ci toftalu ngir gën a bëgg ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel émission bi lee ñu gën a maytu bokk na ci drame yeeg di divers yi des dañuy dem yaatal ko ak ki nga xamante ni moom mooy biso à tout jërëjëf si vous nous rejoignez ba tey yéen ci seen émission bi di les échos du nga xamante ni ajuma bu jot dinañ essayer rassembler toutes les actualités phares de la semaine indi leen ko ba ngeen am ci la bonne version ba tax na tey dañuy njëkkee rek euh, ci ki nga xamante ni moom mooy waajur bu góor bu Boubacar Diallo fa nekk fële ca ITV euh, moom nag tey dañoo yeewoo tiis ak nakar bu metti ndax waajuram bu góor daa génn adduna ñu ngi koy ñaana rek yàlla may ko xamante ni way juróom boobu amoon na ko yéene ci moom sunu borom mottalil ko ko ci bàkki Nabil Moustapha enterrement bi nag tey incha allah à 15h di ngeen ko am euh, fële ca cimetière bu Yoff fa lañ ko nar a euh, denc donc euh, képp koo xamante ni rek yëgu ko woon ni la mbir mi demee ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla xaree ko àjjana ci barki Nabil Moustapha leneen loo xamante ni bor nañ ko waxtaanee bokk ci meurtre boobu nga xamante mi ngi dal ci kaw ki nga xamante moom lañ doon woowee Ndongo Gueye moom nag benn bijoutier la woon âgé juste ci ay 30 ans euh, wala li ciy toppit du bari parce que âge bi nga xamante ni moom la ñu jox mooy euh, fanweeri at ala amoon euh, kàddu gi nag di bàyyeekoo ci ñoo xamante ni dañ ko jege lool donc moom moom nga xamante mooy bijoutier boobu di wuyoo ci turu Ndongo Gueye moom la ñu faat daal di koy dugal ci otoom teg ko ca euh, tali ba nga xamante ni dafa jege fa nga xamante ni moom mooy Cambérène loolee nag bi mu amee euh, nee nañ ca dimanche ba la loolu amoon ndaxte dafa xëy sango tàggu seen waa kër ne leen dafa war a dem ci benn client boo xamante ni mi ngi tudd Basirou Thiam ngir dem fay ku ji bor ndaxte euh, sax bu jugee ca loolee dafa war a dem fa nga xamante ni moom mooy Dubaï bi loolu amee. Eh, ginnaaw bi mu génnee këram ca lañ ko gëjoon a gis ba mu mat ñetti fan seen waa kër commencé jaaxale magam bu góor daal di dem fa nga xamante ni moom mooy police def déclaration ci disparition boobee eh, nistud rek ñu daal di eh, gën a wuyal information boobile retombées yi ñu ci am ba tax tey ñu mën a xam lu leer bokk na ci bi loolu amee ba ñu def déclaration boobee moom Abass moom Ndongo Gueye nekk koo xamante ni da daan dem bu jëndee or ñëw di joxe. waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykatu or yi cela veut dire il était fournisseur bi loolu amee client bi nga xamante ni moom mooy Basirou euh, Thiam euh, moom nag euh, daf ko yore loon lu toll ci 6 millions bi mu demee di ko fayeeku ji ci lañ ko gëj a gis bi loolu amee tamit nit ñi di gën a wéyal seen enquête waaye li ñëkk tax ñu jàpp ne disparition boobu nekkul lu naturel téléphone am portable am la ñu repéré ci benn plage bu nekk fële ca Malibu bi loolu loolu amee euh, xel yi commencé tey kenn ku nekk di def ay taxaw seetlu par rapport à sa disparition waaye bi loolu amee it ñi nga xamante ni ay jàmbaar lañ fii ci réew mi nga xamante ni ñoom ñooy euh, sunu police bi ak euh, sunu gendarmerie bi ñu def ci jéego yi am solo ndaxte bi loolu amee tey jii la ñu yeewu nag xam exactement nan la mbir mi demee ndaxte Bassirou Thiam moom mu ne nañ moo nekk le véritable meurtrier de Ndongo Gueye ndaxte nee nañu moom ci boppam moom la mujjee gisanteel Euh, te moom ndongo bi mu ñëwee ba euh, di ko fayeeku xaalisam moom Basiiru euh, fekk ko këram altercation dafa mu a am ci ñoom ñaar ci noonee ci la ko étranglé daal di koy asphyxier ba pare daal koy lëmas dem marché Thiaroye wut fa ñaari sac en plastique daad ko ciy dugal bi mu paree la taal oto ndongo Guèye di dawal mais dawal bi taxut mu demee noonu xibaar yi nag may fàttali ñu ngi ko amee IGFM ñoo ñu ko leeral faram fàcceel ñu ko ba ñu mën cee mën a addu actuellement nee na ci noonu la jëlee oto ki nga xamante ni moom mooy Ndonga Gueye di ko dawal mais bi mu koy dawal dafa am benn oto particulier bu mu laal te bi mu ko laalee dafa daw noonu la ko euh, véhicule particulier boobu chauffeur ba ca nekk topp ko ndax moo ko dàkk dawal jusqu'à ce que mu daal di koy jàpp ci noone ci la sànni caabi otoom daal di daw waaye terewul moom ki nga xamante ni moom la def yooyu def def jëf jooju moom euh, borom oto particulier boobu moo mujj dugg finalement jël moteur bi euh, jël aussi caabi ci daal di dem euh, bi mu defee loolu par la suite euh, daal di dem këram continuer ay ay ay liggéeyam parce que dafa waroon a dem jam ñaajo yóbbu benn client bu doon dem aéroport euh, par la suite ci la ñu amaat yeneen i information yu ajuwaat ba tey ci li nga xamante ni moom mooy meurtre boobu noonu ñi nga xamante ni ñoom ñooy la police et la gendarmerie ba tey ci seen i gëstu ak enquête ñu ngi ñuy xamal ne waa jooju moo mujj demaat police déclaré wone benn waay boo xam ne dafa def capuche joxe benn description boo xamante ni dafay montrer typiquement ki nga xamante nii moom mooy le meurtrier de euh, Ndongo Gueye moom Bassirou géey moom nag biñ ko laajee li moo xam ne du lenn lu dul euh, ñëw na sama kër effectivement di ma fayee ko bor mais jox naa ko xaalisam bi ma ko joxee xaalisam après ay 18 heures dafa revenirat di ma laaj euh, ba xam bàyyiwu fi sama bàyyiwu fi téléphone am par la suite ci laa ne ko ci noonu la demee waa jooju nga xamante ni moo ko décrire moom Bassirou Gueye moo xam leen de li mu soloon mooy benn capuche euh, beneen bi ci topp mooy euh, moo ko laal moo tax mu ñëwoon pour découvrir et noonu la ñu mu demee ba découvrir euh, saaku yi nga xamante ni fa la daggate woon ki nga xamante ni moom mooy Ndongo Gueye dugal ko ci biir otoom teg ko ca talibé nga xamante ni moo féete fale ca Cambérène loole la mbir mi demee actuellement te euh, leneen loo xamante ni rek toftaloon na ci ci koy ay xibaar ci kàttanu sunu borom dinañ ci ñëw pour le moment Bassirou Gueye ñu nga ko tey fële ca garde à vue euh, leneen loo xamante ni rek àdduna ci xibaar boobee dinañ ci ñëwaat incha allah ci suñu prochaine euh, émission de les échos du net ñu gën a wéy ba tey ci leneen loo xamante ni ay xibaar la waaye pour cette fois si ba tey ci eh, coowal tribunal lay aju ndaxte eh, kii di eh, sunu mbokk mi di liggéey fële ca group Futur Média ñu gën koo xam ca la nga xamante ni moom mooy wàllum làmb moom Lamine Samba nag déggoon nañ ko fi ak coow ak keneen koo xamante ni dañ ko doon woowee benn policier boo xamante ni dañoo abrégé turam i b la b lañ koy woowee moom nag dañoo sekkoon wàllum jënd ak njaay ci ci wàllum xar nee na bu ko joxee lu toll ci quatre-vingts euh, xar euh, mu nekkoon ci valeur u dix-sept millions donc quatre-vingts béliers yooyu nga xamante ni euh, mi ngi ko amee ci bergerie policier boobu nga xamante ni turam maa ngi fàttali rek bee ñaala donc ñu daal di évaluer somme bi yëpp mu waroon a toll ci dix-sept million dégg na mu daal di koy jox lu toll ci onze millions daal di koy deseel donc deseel googu mu ko deseel nag cal ca la problème ba féetee parce que euh, da koy woo du ko jot euh, mënatut a fexe ba euh, dolli ko li nga xamante ni moom mooy xaalis ba mu ko yoree loon ci noonee ca kooku di policier ba ca la demee ci yoon daal di koy porter plainte jamono ji le tribunal de Pikine bu féete fële ca Guédiawaye en même temps moom teg na ko loxo moom mii di lamin Samba ba tax mu war a fay benn somme buy évalué wu rek ci 7 millions de francs CFA en guise de domage et intérêts aux policiers donc euh, fii la mbir mi yamee néegul donc euh, amaguñu ci leneen lu ñu leer ba xam euh, dañ koo téye waaw wala déet waaye lu mu ci mënti doon incha allah ci suñu prochaine émission di ngeen ci am loo xamante ni da leen di leer nañ ñu ngi koy ñaanal rek yàlla jëlee ko ci jafe-jafe yooyu nga xamante ni nekk na ci ba sunu borom yombalal ko li nga xamante ni moom mooy som boobu leneen lu nu mën a waxtaanee ba tey bokk ci nag eh, ci langue politique gi xam ngeen ne eh, démb lañ doon takkal ndombal tànk kii di ay dara mi nga xamante ni ginnaaw bi mu doon jongante maire bu Guédiawaye moom ak Aliou Sall moo ko mujj gagné waaye bi mu ko gagné ba noppi dafa bëri ay eh, problème ak i coow yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ca boobu installation nga xamante ni dañ ko ko doon defal démb ci maire bu Guédiawaye à la présence du préfet ak ñeneen ñoo xamante ni rek ay la lañu ci Benno bokk yaakaar euh, nekkoon nañu fële ca euh, ino ca installation bi nga xamante ni ñu ngi ko doon defal kii di Ahmed Aïdara je rappelle que moom moo gagné ci élection locale yi mairie bu euh, Géejawaay bi loolu amee nag coowal coow la la tax mu daal di feeñ ba kenn ku ne daal ci jote bokk na ci moom mii di Ahmed Aïdara nee na njuuj daaj dafa am ci vote yi parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor bi nga xamante ni ñoom la ñu mooy conseiller bi donc ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dañ fa am doole et doole jooju ñu fa am du ko arrangé ñenn ñi nee nañ looloo tax Ahmed Aïdara daal di euh, wax ne njuuj njaaj am na mais ñeneen ñi aussi nee nañ waa bennoo Bokk Yaakaar ñoo bàyyi ne ay dara comme jël nga mairie bi acca nañ doxal parce que ñun lu ñu décidé du am donc loolu bokk na ci li nga euh, li tax tey euh, problème commencé am ci diggante ñooñee nga xamante ni ñoo féete ca ba kii di Ahmed Aydara leneen loo xamante ni def na ko remarque nee na bokk na ci ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, doon na voté nekk ci euh, bureau bi nee na daf ci am koo xamante ni yaay la ak doom joo xam ne dañoo voté en même temps pour euh, premier adjoint du maire pour euh, ki nga xamante ni euh, moom mooy waa Benno Bokk Yaakaar te loolu dafa bokk ci li nga xamante ni ci loi bi loolu nanguwu ko loolu bokkaat na ci motif yi tax mu ne dañuy njuuj njaaj li nga xamante ni moom mooy vote yi bi loolu amee aussi euh, bi ñu defee suñuy euh, taxaw seetlu laaj ci ñi nga xamante ne ay analyste politique lañu li ñu xamle du lenn lu dul euh, ñii di waa Benno Bokk Yaakaar dañoo am taxawaay bu baax a baax ci conseiller fële ca conseiller ba bu mairie bu Géejawaay ba loolu tax na aussi ñii nga xamante ni ñoom ñooy ñi fare ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed dara donc du leen arrangé te d'habitude premier adjoint du maire du nekk ci partie opposante mais euh, euh, au contraire dafay nekk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gagné mairie bi en même temps euh, beneen bi nga xamante ni ba tey bokk na ci taxaw seetlu yi ñu gis euh, te moom mi di ay dara daal di koy signalé bokk na ci ne moom Macky Sall dootuñu nangooti benn yoon muy indi njuuj njaaj ci li nga xamante ni moom mooy élection yi mbaa vote yi beneen bi ci topp mooy lim koy conseillé mooy mu jël si rakkam moom alin Sall yëkkati woon na ay kàddu sax jëmee ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Sarr mi nga xamante ni moom la ñu ne moom moo gagné pour nekk premier adjoint du maire mi ngi bokk ci yaakaar loolu bokk ci li ko frustré parce que bokk benn yoo ci li koy arrangé parce que bu fekkee ne ñoom am nañ fi benn taxawaay bu am doole ci biir mairie boobu noonu ek que euh, ñoom bu fekkee ne ñoom ñoo yor euh, la partie euh, majoritaire suñu décider dara te ñoom nanguwuñ ci aussi duñ ko du aboutir à rien du tout donc loolu day nekk ci ñenn analystes yi nee nañ dafa mel ne dañoo bëgg a xajamal ay ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Aïdara donc pour l'instant foofu lañu ñu yamandeegul ci euh, actualité yi euh, altercation ba nga xamante ne jotoon na faa am xëccoo ba problème ga coow ga leneen loo xamante ni rek xam naa ne toftalu na ci mën ngeen ko am ci le rendez-vous de Sénégal set avec Ndiab bi tey euh, moom moo yor wàllum lépp loo xamante ni rek day jëm aju ci wàllum politique fii ci Sénégal 7 leneen loo xamante ni rek mën nañ ko bàyyi xel bokkur ci politique gi parce que Bamba Fall ginnaaw bi mu gagné fële ca Médina mairie bu Médina ki Macky Sall da koo takkal beneen ndombal tànk boo xamante ni rek mi ngi ko jël jëmee euh, ci ministre conseiller ministre conseiller googu nag bi mu ko doonee bari na ñoo xamante ni loolu metti na leen parce que li ñu bëggoon rek mooy bàmba euh, yam ci fa nga xamante ni mooy euh, ci opposition bi nga xam ne mu ngi opposé wu te yàlla def na ni am na benn cap bu normal ci langue politique gi parce que dëggal na boppam te am na loo xamante ni du Macky Sall moo ko ko jox du kenn moo ko ko jox mënoon na noonu fait que mu collaboré wu ak euh, collaboré wu du moins ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Macky Sall amaana am na leneen lu muy wundu du samay wax sénégalais yi ñoo gisee noonu bi loolu amee euh, tamit moom mii di Bamba Fall yëkkati na ay kàddu xam le ne moom mii di Macky Sall geste bu mu defoon en 2018 février 2018 je rappelle que ne dafa ñëwoon jaale si ko benn nijaayam boo xamante ni dafa gaañu woon te nee na bari na ñu ko yëgoon te ñëwuñu te comme moom yëg na ko ñëw tant que euh, koo xamante ni yàlla dafa de dogal mu nekk njiit ci réew mi donc loolu dafa nekkoon lu ko marqué ba tax na mu yëkkati fa woon ay kàddu ne ko ci loo mënti nekk dinaa ci nekk te nangul na ko li nga xamante ni moom mooy mairie euh, mairie bi nga xamante ni gagné na ko fële ca euh, Médina waaye ñeneen ñi ba tey ci analyste politique yi fii ci réewum Sénégal ñu ngi xam le ne est-ce que le fait que Macky Sall yëkkati Bamba Fall teg ko ci wetam teeyul xel conseiller bi mu doon au-delà de euh, maire de Médina bi mu doon il est euh, le il est conseiller municipal à la ville de Dakar te loolu boo ko déggee dafay mel ne rek am na lu ñuy waajal kii di Barthélémy Diaz mi nga xamante ne actuellement moo gagné euh, ville de Dakar donc loolu it nekk loo xamante ni lu nu war a bàyyi xel la ñu def ci taxaw seetlu à l'avenir leneen lu ci mënti xew rek ñu xam ne lu nu njortoon la ndaxte am na ci yu bëri yoo xamante ni c'est pas gratuit la politique en en réalité Euh, rien n'est gratuit loolu la ci ñenn ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy analyste politique yi euh, daal di xamle ñu ngi daal di desani ba tey ci Barth moomu moom Barthélémy Dias euh, daal di def geste bu rafet boo xam ne ñu bari rafetlu nañ ko fii ci réewum Sénégal daal di euh, nommé ki nga xamante ni moom mooy xalifa Sall euh, maire honoraire comme ni ko Ahmed Aïdara defee Malick Gakou maire honoraire loolu nag may fàttali rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy internautes yi du lenn lu dul delloo njukkal ñi nga xamante ni ñoom nekkoon nañ fi doon def liggéey bu rafet ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy actuellement yëkkati boobu titre euh, jox leen ko euh, cela ça ne dire que ñoom dañuy ñëw di exercer au niveau de la mairie waaye maanaam njukkal buñ leen jox jëmee ci seen euh, image ndaxte ñoom dañu dañoo rafetlu seen taxawaay bi mu ñu fi nekkee ak lépp loo xamante ni rek doon nañ ko def jëmee ko ca maire ba nga xamante ni moom lañ doon gere loolu it bokkoon ci lu ñu waroon a yaatal ci langue politique gi waaye ba tey ñu daal di nag ci li nga xamante moom mooy actualité pratiquement xam moo gënoon fës ci semaine bi bokkoon ci euh, baptême euh, ngéntewu euh, doomu Sumbulu mi nga xamante ni ñu ngi ko dippee Maam Jaara Bousso Sumbulu di soxna ci Abdoulaye Diop Xaas moom nag dañ ko doon ngénte ngénte la nag tubaarkàlla ñëpp ñëwoon nañu képp koo xamante ni rek célébrité nga fii ci réew mi demoon nga wuy jikki nga xamante ni moom mooy Sumbulu li mu nekkoon nag loo xamante ni lu ko neexoon la premier image bi sénégalais njëkk remarqué mooy ndeysaan kii di euh, ëmb bi moom Soumboulou sonnoon na ci lool parce que changement sax dafa amoon ci kanamam loolu nag ñu bëri ci internet yi li ñu doon wax mooy doom mënul fay benn yoon ndeyam parce que moom moo koy déformé mais moom moo koy euh, jox bànneex bu mu mosul am waaye nag loolu yëpp euh, ñu daal di koy cumuler conjuguer ko ci li nga xamante ni moom mooy bonheur parce que loolu la éprouvé moom mii di Soumboulou li di actrice je rappelle mais aussi di soxna ci Abdoulaye Diop Khass leneen loo Souleyboulou xamle na ko mooy sant na bu baax borom këram te defal na ko lu rëy ndaxte euh, ñu màggal poroxaan ba noppi euh, so doomam ji euh, ñu dippee ko tamit soxna jaara ki nga xamante ni mooy ki gën ci soxna yépp donc loolu da ciy rafet da koo rafetlu bu baax di ñaan rek juróom-ñaari jikko yi nga xamante ni nee nañu boo tuddee nit doom da koy jëlee ci moom yàlla na ko jëlee moom doomam ji yàlla na ko jëlee ci trondoowam Ablaye Diop Xaas aussi daal di gërëm soxnaam waaye tamit. daal ne li lu bëri li tax mu koy mën a dékku di ko mën a jeere ndax coow li yenn saay mu bari ci moom du lenn lu dul saa bu demee ba bëgg a xàddi sax sumbalu ne ko xanaa du lii ngay wax donc lii dul fenn la lay takk te nekkul loo xamante ni sa avéré la c'est la même chose euh, ci kaddu yi ki nga xamante ni mooy way jur bu jigéen bu sumbalu bàcc li ginnaaw bi mu gërëmee doomam di xamal ne lu mu am bokk na ko ak moom euh, mi nga xam leen ne rek euh, moom sumbalu tout le temps bu déggee Diop xaas wala ñu jël photo Soumboulou daal di koy euh, taf euh, waxal ko information boo xam ne amul nee na du woo sax euh, doomam du woo sax Abdoulaye Diop xaas parce que ni mu war taxawoo doomam taxawoo na ko ni mu ko war a yërëmee yërëm na ko amul dara lu ko metti ci moom donc looloo tax moom nee na du sax farataal information yooyu li leen di digal rek ñooy ñu bañ a déglu te nekk ci li ñu war a nekk te góorgóorlu te xam ne say yombul bokk ci kàddu yi ñi nga xamante ni tamit doon di waa Soleil Levant kii di euh, Cheikh Ndiaye ak euh, kii di Euh, Aziz ñoom tamit yëkkati woon nañ ay témoignages yu am solo jëmee ci ki nga xamante ni moom mooy Soumboulou ndaxte nag kenn ku ne xam na ne la majeure partie euh, des sorties euh, yu Soumboulou ci wàllu série wala lu mu ci mënti doon mi ngi ko defee ak waa Soleil Levant donc ñu koy seedeel ci lu mu am bokk na ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay xaritam dafa bëgg a de da ko daan dem ba koy wax sax naan tout le temps moom di joxe moom mooy gàllaajam donc loolu yëpp bokk ci doomu aadama loo xamante ni bu sañoon saa bu amee xew ñu ko koy seedeel donc euh, loolu la ñuy yamandeegul ci xibaar boobu dañuy ñaanal rek bébé soxna jaara sunu borom defal ko mu daal di màgg fekke ba mën a dimbali ay waajuram ñu daal di gën a wëy rek ci actualité yi nga xamante ni semaine bi mu gënoon fës euh, fii ci réewum euh, Sénégal ginnaaw li ñu fiy jot a wax rek di leen xamal ne saa sune li tax ñuy bëgg ngeen di gën a bàyyi xel émission bi jógee bokk na ci dañ leen di jox euh, yenn drame effet divers yoo xamante nii day gën a tax ngeen gën a mën a bàyyi xel seen bopp mais aussi seen entourage plus particulièrement vos familles parce que kii nii benn taximan la boo xamante ni dafa yeb benn ndaw boo xamante ni euh, course ba mi ngi toll rek ci mille francs mu jëlee ko point A pour yóbbu ko ci beneen destination soriwul moo tax euh, la somme daal di s'élever ci mille francs donc mais nee nañu moom bi ginnaaw bi mu yabee ndaw soos soosu nga xamante ni euh, waxam olof sax xawuta leer dafa tàmbali rek di ko caresser ak di ko tapoter di ko raay donc loolu bi mu jotee ba am xale bu jigéen bi tit tiit euh, sursauté sursauté daal ne ko li ngay def euh, lu mu doon exactement lan moo waral lii ngay def ni tu es malade ou quoi noonu par la suite nee na ci la ko doon mel ne lu koy forcé waaye xale bu jigéen bi daal di mujj daal di génn sauté génn ci li nga xamante ni moom mooy oto bi pour arrêter beneen oto bi a beneen oto pour dugg ci euh, moom mii di chauffeur bi daf ko topp pour di ko xamal ne fayoo ma li nga xamante ni moom mooy sama xaalis waaye bi mu ne fayoo ma sama xaalis aussi xale bu jigéen bi lim ko xamal du lenn lu dul yóbbu woo ma exactement fa nga ma war a yóbbu euh, maanaam li ñu waxante woon ci biir oto bi avant may départ te dawaloo lu bari commencé di maraay Euh, bariwul looloo tax ma wàcc te waruma laa fay ndaxte yegguma fi nga xamante ni moom mooy fa ma war a yegg noonu par la suite nee na chauffeur euh, bi nga xamante ni moom la ndaw soo su jëlaat pour mu yóbbu ko moo mujj sax génne 1000 francs fay ki nga xamante ni moom mooy euh, pervers bi waaye nag bi loolu amee euh, moom waa jooju nga xam ne moo doon def jëf jooju ba ndaw si wàcc dafa gën a wëy continuer di saaga ak def insulté ki nga xamante ni moom mooy xale bu jigéen bi ci noonee ci la xale bu jigéen bi porté plainte trois jours après ñu daal di mujj jàpp chauffeur bi waaye bi biñ ko jàppee li mu teg ci loxoy policier yi rek bokk na ci ne euh, dafa ko doon tooñ doon plaisanter ak moom parce que dafa euh, yéeg xees mu foog ne pël la te ñoom comme ay kal lañu looloo tax mu doon wax loolu en tout cas avenir am dara leeragu ci ndaxte bu xale bu jigéen bi baaloon mbaa mu euh, daal di teggi li nga xamante ni moom mooy plainte boobu ay problème yi neen la nar a am donc duñ koy ñu ngi ñaanal xale bu jigéen boobu ndaxte bari na ci ñoo xam ne bu ñu dundee yenn traumatisme yooyu noonu à dañuy ragal fépp Euh, donc euh, tout le temps loolooy tax sax ñenn ci internet bi ñu liiree article bi ba noppi ñu ngi koy conseil à ce que mu gis koo xamante ni dina ko mën a dimbali ba yenn yi mu fàtte ko bala moo def traumatisme ci moom. alors amis chers fidèles internautes de Sénégal 7 lii lañ leen digtaloon tey ci émission bi di les échos du net sur Sénégal set ma àndoon ci nag ak sama jàmbaar boobu nga xamante ni moom mooy Bijou ak Yankoba ak euh, sama beneen xarit boobu nga xamante ni tubaarkàlla moom ibaadu bu jongama la merci à vous euh, di leen joxaat rendez-vous ci kàttanu sunu borom incha allah beneen vendredi d'ici là portez-vous bien et restez scotchés euh, sur les programmes de Sénégal 7 merci beaucoup